ñëw ñu ñëw ñu ñëw ci combat bi nga xamante ni moom nga jëp si nga jël combat boo xamante ni ku ne wulli xam nga wulli ak coow ku ne wulli xam wulli ak ambiance nga jël wulli lan moo tax nga jël wulli wulli tax ma jël ko nag wulli nag mosoo ko gis muy daw muy bëre di daw jigéen de bëre naag ñoom sàccees ak ñëpp de mais buuri buuri mos nga koo gis muy daw di génne saako yi ba tëdd de voilà nit da am jom mais nekkul nekk gis nga nit boo demee ci xare da ngay dem ba tëdd suuf mais doo daw daw baaxul te bu léegi mënoo gis muy daw nit ku am jom la yàlla dafa maye te yemalewul rek boo ko xoolee nit daq na bor nit sax nit feye ko ay millions yow feye ko loolu man kenn gi dàq maa bor Sénégal. yow mii barke la kenn yàlla. fan loolu yow Adama Diouf dàq dama ko xam. yooyu itam bore bu yor benn feem man yoruma benn feem de nu ne ngay gisee may daan nit tànk kese sax daan naa ko nit. <laughs> xam nga léegi fen dafa wute. ba pare nag ngay ngay ngay bëre ku dàq xeex ci làmb ji. waaw ñoo ñi dàq xeex ci làmb làmb ji ñëpp amoon a xeex jekkante rek moo fi nekk. man laa wax ah, ka wuli moo dàq xeex ci làmb raak wuli moom day raak moom kay ka raak du lii jaar bu lii jaar na dootuma eh, bëri ci ginnaaw saako yi lañ tëddi ji yaa <laughs> ci ginnaaw saako yi lañ dem tëddi liiru jaar ma koy nuyu au moom ñu seen sax mais dina mel ni indiwul sari ca de ah gisuma gisuma ku ne liiru jaar jox na ma sari ca de ay portable yi reer daal kalpe bu saaj <laughs> Ah, <laughs> yow loolu andi coow ci dëkk bi moom bu géwél nga bëgg dugg yaa ngi dugg ci affaire Lirou Diane ah moom daay dugg bu ñëwee eh, ci kay gisuma de bu karne ma jox na ma sar ca gisuma kenn ay gars yi am yooyu. est-ce que jox ko ay Lamine ay Balla Gaye mën na nekk mën na nekk mais nag war nañoo jox ñun it am ah. kon ñoo fi nekk di waxante bu ñëwee mu jox mu jox la kaw nee na ma nee na ma mais ñooñu nag ñooñu nag comme wax nga ne lu tax nga jël ko mhm. euh, Sénégal boo buggee nekkee ci réew mi da ngay bëgg ñëpp bëgg ay kilifa tax woo nañ ma bu ma bëre ko li naan jël ko waaye ngeen neexal xam nga wuli nag aussi nit nit yi la mm-hmm. loolu moo tax ma jël ko mais ñoom du ma seen morom oh. noo xam nga ko nag yow yaa gën xam ne ñooñu ci bore wax rek du ma seen morom ci yow waxoo fi léegi wuli champion la bëri na Sa waxee ma ne la ci jomam laa wax ne champion la ci jomam mën a bëre mën a bëre non ci am jom rek ci am jom waxuma ne mënul bëre de. ma la déggee su ma ni ngay waxee nii naw la woo wër wuli ci ko nawloo du ma ko jël. déedéet bi ngay wax. naw waxuma ne naw. yaa wax léegi ne yaa dàq bëre Sénégal. maa dàq bëre. waaw waaw fii maa ngi dàq bëre. ba pare da nga koo naw ci jomam. te mais nu laa daan nañ ci àdduna. jàpp ne fa sax ba mu neex ma daan ko def naa ko. loolu moom doo war ci wuli moom. Ah, man xaw ma mais def ko boo ko defee dina la wuli ba nga moom kay day wuli waate xam naa ne moom ñi ngay wax noonu duma seen moroom ci bëre déedéet comme nag yaay dox ci escalier bi fakkasalu daanu. wala ci mbedd mi. ku ne mën na laa daan yow xam nga fi may waxee. dégg mais ju dee ci bëre rek teg nga ko ci yoon lu tax gars di ko naan delloo aval bi ak ñoom dégg naa sama papa Gaston maa ngi nuyu sax di ko naan delloo aval bi. de eh, allez allez waa si Dakar bu ñu tegee ba ñu bëre pare papa Gaston day tegaat pour ñun ma ak moom suñ papa di. te day tëgg. te il faut loolu ko bëgg def aller ak retour. waaw lañ def dañ def duñ ko def benn compétition dañ def bëri fii bëriwaat fale ku daan ñaari nag yaay <laughs> yaay moon <laughs> suñ papa ah, dañ ko bëri dina metti de. may nuyu nag bu ñu tegal ku baax la ale kooku moo lay woo dina nemeeku lee sax may la njëg crédit nit ku baax la. ale waaran sa Dakar ay ndew lañ doog dugg si làmb ji nag gars yi lañ leen xajal ñu am place comme li ma la wax léegi rek bu ñeemalee làmb ji ci benn côté. comme ñoom nekk nañu ay ndaw dëkk extérieur dem uti comme suma grand bi ni muy uti woon ba ñëw grand bi indi projet boo xam ne nar nañoo jàppale ci làmb ci sport te bu gënee rek ñëpp nañu xam ne ñëw na te ñëw ñëwul pour intérêt bu am. moom dafa yàgg bu sport loolu loolu loolu loolu loolu incha allah su ñëwee dañ fay ñëwaat waxtaan ci loolu. waxtaante ak moom da ngeen war a ñëw sax waxtaante ak moom. loolu la ñuy def moom nag day daw affaire média déedéet du ñu daw ñu fekk nañ ko fi moom mënuñu ñëw ci moom fi mu moom léegi moom dinañ waxtaan ci loolu moom ni ngeen may jëlee mhm. ñu bari noonu lañ koy leer parce que dafay am lu muy dund di ko doxal ci lu baax wax naa la le bu ñu ñëwee Dakar moom lañu fekkoon mu nekk médecin te loolu kenn fayu koo dara barke la kenn mosu ko jox dara moo doon xool kuy jël kuy jël sa xaalis bari di fi gaañu mhm. di ma ko ne waa grand di ma gis ngay dem pharmacie di jënd say bagage yëpp te man gisuma kenn jox dara mu ne ma déedéet man maa mënoon maîtriser booy di gaañu moom laa wax ku jël sa xaalis di ko def ci làmb di ko nii nii nii. avant corona bi la dem France. maa ngi ko doon temps ñib si waaye bu nga ñib si corona bi jàppatu la mu nekk ci ay liggéey bi am na lu mu indi te loolu buñ génnee da ngeen xam ne indi na dara. te loolu da ngeen ci war a waxtaan ak moom. te loo xam loolu nekkul intere bu am kese. nit foo bu nekk rek pour bu am kese baaxul da ngay nekk nit sax boo nekkee boo nekkee fenn da ngay fexe ka ngay àndal boo amee oto nga fexe mu am moto boo amee moto nga fexe mu am saret pour léeg muy dem fu sori tax du la tàggu wala dina la yegal te moom noonu la mel bu ànd moom bu boo amee rek moom bugg nga am dara. ku baax baax la def loolu. léegi ñu ñëw ci wuli dégg nañ mu ne Adama Diouf boo gisee nu muy dox di kii nga xam ne dafa am ay rab waaye bu ma ko jàppee dinaa ko dóor ba pare faj ko. maanaam moom du séeréer séeréer bu amul rab daa am. amul sa koy dëggal. Ah, am na xam ne wérul waaye moo ko ma ne rab lu koy derloo ay rab la. <laughs> <laughs> lu derloo noonu ay rab la. <laughs> ah nga ne dër bi mu dër ay rab la rab la. gisoo léeg gis bu wax au oh, sérieux rab yaa ñëwul mais mais bu rab yi ñëwee bu tuurul. bu tuurul. ba xam nga xam nga xam nga juum xam nga biñ jagga ba amin bu rëñ yi laan moom bu tuurul du mën a wax. laaj ko rek moom bu tuuri rek dégg nga wax normal mais bu jaaxaane tuuri tëb ko ay affaire am yooyu <laughs> ay labi sama yooyu nag moom <laughs> gis na Papa Ka gis na Papa Ka soddi ko naan delloo avare bi daf koy tooñ rek wuli champion la xam nga Sénégal bu ñu fi nekkee nag lépp loo xam ne dafa nekk intérêt sénégalais yi dañ ko war a def ñoom waroon nañu xam ne sax maanaam comme exemple moo bu waree bu rek diw day neex dañ ko war a def loolu am parce que lii nii amaana sax dañ ci am amaana ñu ngi ci am lu ñu ciy gagné mais dañoo war a xam ne sport bi dañ ko pour sénégalais yi la pour yow nga nekk sa kër bëgg sa jabar bëgg keneen bëgg dem naa Dakar ma dem di jënd kii nu mu tudd koko benn gars yi gaare kat kat ma jënd nii rek dinaa ne benn grand ñëw rek jënd yëkk dix mille jënd jënd ñaari koko defe naa mille francs rek mu jef ma nii ma jël loxo bi mu baay fa noox mi ma ne eh grand lii la nag mu ne grand yow xamuma xaw ma la soxla ma sax sa numéro sama jabar bu meree xoolal damay maa tey rek dugg ci net bi rek génne say vidéo dégg nga gis mu commencé di def nii. <laughs> sa vidéo rek so ba léegi xoolal jox ma ne ma jox ma ko ne ma barke Sidina Mohamed wóor na waar sax baawa billaahi nga xam ne loolu war ngaa di sooraale nekk ci bi. lépp loo xam ne da ko war a def pour intérêt sénégalais yi da ko war a def bu ma toggee ñaar ñetti kilifa woo ma ne wuli def lay laaj jël ko waaye ngeen neexal de ma ko war a jël mais nañ xam nag terewul nag kurpeñ dañ takkar naase de moom moom bu arbitre wax ci li doy rek mu sa kaw. xam nga loolu waaw mais xaaral rek ba mu ba mu dox du ma kaw <laughs> du def noonu ku mu def gars yi du ma ko def. du ko def man maa la du ko def loolu. comme ni mu def gars parce que xam nga ne Wassare nga ko waxee defe naa loo fi wax na leer de. Wassare nag Wassare rek lay def ma waxaat ko. waaw wuri bu arbitre loo loxoom du def noonu. nu muy def gars baadu abi day wàcce loxoom. moom eh, bu arbitre doon ne wàcc na ñëw sa kaw wax moo ko tànka moom bu arbitre suuf la wàccee loxom doo gis mu def loolu man maa la wax li du ko def xam nga mu ci kanam. du ko def. bu arbitre wàccee seetaanal ko seetaanal am combat am yëpp bu arbitre suuf day day jox sa kaw. moom nag bu arbitre suuf la du def noonu man maa la ko wax du ko def. wuri du def loolu. dégg ma ne Adama waxoon naa la ko arbitre la li def noonu doo ko gis mu def ko de. gis ngeen nii lay demee ci wasaare làmb boo amoon kàddu yu mujj loo ñu wax. non mu yu mujj xanaa sant di gërëm monsieur Ipen di ko ñaanal lu mu bëgg nag di ñaanal ñëpp di nuyu waa sum production ak góor production di nuyu Angèle Fall Mbayang Fall Mbayang Loum Xaar Thiaw di nuyu Momam Diaga nuyu góorgóorlu góor di nuyu nag Ablaye Ndour Dar di nuyu Adama Ndour. di nuyu Matar Diop au conseil sama xarit di nuyu Moïse Sarr di nuyu euh, Tamsir fay euh, Pape Samba di nuyu docteur Makumba ku di nuyu suñ maire bi Géej Géej Diouf maire Mbella Kajaw di nuyu maire Grand Yoff Madiop di nuyu. Mm, Souleymane jooral kenn ci li di sama xarit di nuyu Ardo Ndiaye fàttewuma kenn di nuyu Gra Touré euh, Mamadou Touré DC directeur numérique di ko nuyu bu baax damay bañ a publicité nekk ku baax koo xam ne ku baax ci man la nekk suma lépp nekk sama patron nekk sama lépp fàttewuma kenn lim nag day tax nga am erreur di nuyu Baba Faye ndax koo lim te limoo keneen gi mais nag nit ku am xel war na xam ne. booy waxte bindoo mën na am koo xam ne fàtte nga ko di nuyu Tamsir defe naa wax naa ko fàttewu ma kenn di nuyu Augustine suma jigéen bu baax ni suma jabar dama bari jabar sax sumay jabar sama jabaru mag fàttewu ma kenn ah, di nuyu askan bi yëpp ñi nga xam dañ ma bëgg di ñaan